munu leen wax a wax ba convaincre ñu ne dossier bi loxo état dugg ci wala defuñu ko pour élimination politique ñun munuñoo wax ba convaincre leen loolu leneen le contraire que yéen da ngeen ko def pour élimination politique mais peuple bi moo koy arbitré léegi nag contexte bii ñu nekk nii est-ce que mun nañ ko fi àtte ba mu sotti ba ku nekk def ñu dem tranquillement ci élection yi moi je dis non ça n'est pas possible ce n'est pas possible parce que li ci rax mooy affaire troisième mandat bi moo ñëw compliquer la situation waaw troisième mandat bi président de la république changé point de vue waxoon ne du ci bokk moom moo bind constitution moo ko sécuriser mu ëlbatiku changé position léegi nag bu changé position gars yi dañ naan ah non seulement bëggul kii bokk mais moom ci boppam dafa bëgg a bokk donc y a une complication supplémentaire donc situation boo xam ne bii yow yaa ko compliqué mënuloo ko régler contexte bii nag dañu war a fexe ba ku nekk toogaat nag xool sa bopp parce que maa la dàq yàq kenn du ci wujj ci réew maa la dàq yàq kenn du ci wujj ci réew maa la tabax la ñuy wujj rivalité nga indi sa programme kii ngi programme am nga ne ko man man li ma proposé éducation proposé woo ko mu la man li ma proposé santé moo gën li nga proposé éducation noonu loolu mooy werante politique waaye werante politique maa la dàq yàq dinaa la dóor mu ne la boo ma dóoree dinaa fay ñuy reyante moo am ay moor ñuy enregistré ñépp toog di seetaan loolu laa la ne kenn du ko defaree réew kon nag nañu def attention opposition bi dañu bokk benn combat mooy combat wu liberté démocratique manifestation yu seet ni koy doxalee waxtaane dañu bokk benn combat mooy combat processus électoral ni mu meloon 2012 yàqate nañ ko def ko quatre appuis yi may wax ba mu yegg si fii nañu ko defar opposition bi dañu bokk benn combat mooy fexe ba troisième mandat kenn dootu ko xalaat Sénégal ba koy def kon ce n'est pas moment ñuy xuloo seen biir waaw kooku moom c'est un appel solennel que je lance à toute l'opposition leader opposition yi ku ci nekk ni nga mel nga mel yaa am sa comportement yaa am say contradiction interne yaa am say qualité yaa am say défaut mais ñoom ñëpp da nga am ay militant ay góor mag ndaw jigéen ñoo xam ne dañ leen gëm ay ñoo xam ne dañu ànd dañu dugal seen xaalis Sénégal gëm leen yaakaar ne bu ñu yoree réew mi dina calme kon ñooñu war ñu leen décevoir ce n'est pas le moment opposition bi ñuy xeex seen biir il faut arrêter ça dina jot campagne bi dina ñëw ku nekk di nga am occasion pour wax wax sa défaut morom nga critiquer ko critique bu objectif ba nit ñi xam ne yow kii yaa ko ëpp crédibilité yow la ñu war a choisir mais loolu jotagul ce n'est pas le moment man am na opposition bi ñoo xam ne ñu bokkuñu position bokkuñu ni ñuy doxalee ku ci nekk ak sa façon bi ngay opposé yow li ngay def moom ngay assumer mais ce n'est pas le moment nañu arrêter il faut arrêter sax ay xuloo kii moo def lii kii moo def laa jotagul loolu waxam jotagul fi mu nekk nii il faut se mobiliser militants yi booloo nekk benn ñu renforcer F24 ñu ngi leen di féliciter président Mbodj président Sané ak ñëpp ñi fa nekk ñu ngi leen di féliciter ñu rejoindre ñi rejoindre wul ñu rejoindre ñu organiser wu am un plan bu baax ñu vous félicite manifestation bi gis nañ seen taxawaay ñu ngi ciy profité di féliciter Mor Ndiaye bi ñu fa représenté woon def fa discours bu leer nañ waaw wane ne jàmm yépp mu ci loxo président Macky bu taxawoon ne bokkuma ci élection yi jàmm dina am mais loolu passé nañ ko fi mu ne nii ku nekk braqué na ci position am donc ñaari parti yëpp kenn amul ci capacité régler problème kon nañu wut koo xam ne moo koy régler dinaa ci dellu si c'est comme ça il faut arrêter dans l'opposition ku nekk mën nga critiquer sa morom ku nekk am nga loo xam ne lii mun nga ko reprocher sa morom mais ce n'est pas le moment il faut faire bloc autour de F24 opposition société civile les revendications démocratiques les acquis yi nga xam ne moom la Sénégal am ñu fexe bu mu bañ a perte loolu mooy wax na kon nag dañu bàyyi loolu xel bu ñu yàkkamti ci y aura débat de fond surtout sur toutes les questions waaw y un débat de fond ku nekk na nga préparer affiner sa projet de société sa programme mobiliser say militants def say activité waaw ñu def bloc ñi ay contradiction interne ak ñooyu c'est leur problème personnel waaw werante bi jaru ko amul werante amul werante ce n'est pas le moment Il y aura une campagne électorale de 21 jours. Chacun aura l'occasion de convaincre les Sénégalais. Il faut que l'on Donc, demande solennellement à tous les leaders de l'opposition de faire un cessez-le-feu général cessez-le-feu général waxuma la cessez-le-feu comme ça publiquement même en interne ci suuf waaw jëwante beeg yàqante derrière yooyu yëpp dañ ko bàyyi ce n'est pas le moment si on rate cette occasion Macky Sall dina reprendre pouvoir bi delloo bumba ca boy boy ba et ce sera responsabilité Il ne faut pas rater cette histoire. C'est l'appel de l'histoire. Aujourd'hui, on va reconquérir les acquis démocratiques. fexe ba yenn yi kenn dootu ko ñemee wax sax Sénégal ba koy def waaw liberté droits liberté processus électoral troisième mandat ñu mun a jublu ci préoccupation sénégalais waaw béykat yaa ngi nii am nañu problème mu semence actuellement ci vivre de soudure yi yu si bëri amuñu lu ñu lekk balaa la situation. gis nga